léegi léegi man man mii maay maay maay defar maay jox kii bi ndax di bokk. léegi dama ci wut ñaar dama ci wut dama ci wut ñaar rek. waaw c'est ça. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ini ziar Nyep di gërëm di sant ñëpp TV da ngeen jàppee ba léegi bàyyeekoo leen tey ji nag ñu dellu siwaat ci ndigal loo xam ne sëñ Muntaxa la bàyyee ko xalifa général des Mourides wàcc ji sëñ Cheikh Jëmu Fall xalifa général day Baye Fall ñun ñu ànd ceeg nag sëñ Fallou Fall ñëw di nu sëriñ sëriñ Modou Fallou Fall ñu ànd ceeg sëñ Moussa ak mboolem jullit mboolem taalibe nag ak Baye Fall yëpp fukki kër ak benn yëpp maam Serap Fall ak mboolem seexi nag ñu ngi ziar ñëpp di ziar mboolem jul jullit yëpp génn nañ nag ñu ngi nii ci mbalem Touba mi waaw Baye Fall yaa ngi nii taalibe yaa ngi nii ñëpp a ngi nii wala serafal waa Daaru Bayra TV nag ñoo leen ci teewal ci njiital Mourtala Ndiaye mbooloo mu bare mu takkoo takku teew nañ fi nag taalibe yëpp kër ak benn maam serafal ak seex ak mboolem jullit ak mboolem taalibe ñëpp teew nañ mbalem loolu la serafal mi ngi noonu nag liggéey baa ngi

Sleman. Bala tubaab am seet rek tolay ya, si rabal. Oh,